ok fay nañ la di leen delloo nuyoo di ñaan sunu boroom mu may ñu ñu fekkee ko ay yoon yu bari ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa yi nag ni mu demee ñépp gis nañu ko waaw dem na ci jàmm am na ci jàmm def nañ ko ci jàmm li ci des nag mooy liggéey waaw liggéey rekk a ci des li nga ne bu ma ko amul du ma mën a liggéey nga am loola liggéey ci des waaw su ma amul lii duma mën a def lee nga am lii kon def lee ci des kon nag liggéey rekk a ci des dara desu ci lu dul liggéey liggéey bi ñu may leen seen sago may leen seen sago ak dal ba ñu mën a liggéey ndax itam lu amagul at kenn ku ne commencé coow du sotti nañ leen bàyyi noonu rek gannaaw yàlla def na liñ bëggoon am nañ ko nañ leen seetaan nag nañ leen seetaan waaw li ñu des mooy réew mi yëpp mënuñu ànd am xaalis déedéet réew mi yëpp mënuñu ànd am xaalis déedéet kii day am kële ñàkk ki am dimbali ki ñàkk ñu dem waaw kii day am kële ñàkk ki am dimbali ki ñàkk mu jeex waaye bu fekkee dañoo bëgg ñépp am bu ñépp amee beew am te su beew amee àdduna tukki waaw kon beew dafay am boo gisee yàlla doxali ni mu doxali jox ñi xañ ñi dafa bañ beew am waaye bu joxee ñëpp ñëpp beew waa yàlla xam na li muy def li muy def xam na ko mën na ko ti mu ngi koy def faaliwu ci kenn voilà alors bokk na ci li nga xamante ne moom moo di résultat yi pourcentage yi nga xamante ni génnaa na 54 pour cent yi ñu amoon ci présidentielle yi moom la ñu amaat fii euh, loolu lan lay jàngale ah lu muy jàngale mooy la fi nekkoon a fi ne rek <laughs> loolu rek lay jàngale di la fi nekkoon na fi nekk ña soppoon a sopp rek waaye bu fekkoon te fa wàññeeku ñu ne soppee wàññeeku na waaye gannaaw la fa nekkoon moo fi ne ba tey kon loolu rek la waaw bu ko defee moom itam na góorlu rek parce que soppe dañ koy dimbali soppe kenn du ko rusloo nit bu la soppee ba topp la ba nga xam ne dañuy dem ba naan kii lii kay moom kay affaire du sëriñ la ak nangam kii kay comme sëriñ la nangam nangam waaw loolu loolu loolu lépp du te cofeel la rek cofeel la rek xale la xale la ñoom ñëpp ñu ànd euh, sopp ko kon nag bu mu leen rusloo na góor góorgóorlu rek loolu laa ci xam ma waaw parce que lawoon bu fekkee ñëw na nekkaat loola laa fa nekk waaw ah, kon benn la rek waaw bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany bokk na ci élection yi mais gis nañu ni sax bokk ci li nga xamante ne moom moo di député yi ginnaaw bi nga xamante ne sonn na ci politique bi lool boobu ba léegi mi ngi jéem bëgg na nekk président yàlla suñu borom dogalut euh, bëgg na tamit nekk maire lu nekk bëgg na ko nekk mais lu ci mën di doon rek dañu gis ni que yàlla suñu borom dogale na autrement naka nga jàngate politique bu baax. mooy li nga wax rek yàlla dogal na ko yàlla lu mu dogal jeex na ah yàllaa ko dogal nit ki def na sababam moom li mu li ko war def na ko yàlla la ko neex la def kii li ko war la def kii li ko neex la def waaw. def na li ko war dem na wo woote na. sonn na lu ne daj na ko waaye yàlla lii moo ko neex te lu neex yàlla gën parce que xamoo lu cay topp waaw xamoo lu cay topp parce que defe naa Ousmane sonk war naa jàngal ñëpp waaw ndax li mu daj génne kaso dem nekk euh, li mu doon Bassirou Diomaye génne kaso dem nekk li mu doon xam nga ni loolu loolu kenn foogu ko bokkuloon ci li ñu programmé bokkuloon ci li ñu foog bokkuloon ci li ñu nar far yàlla def loolu kon kay alhamdulilah rabbil alamin buggaan itam na na muñ rek <laughs> muñ moom baax na ku muñ muñ dañ ne as sabru laa yati illa bil xayri ku muñ da nga muñ ku muñ bés da nga muñ kon nag muñ moo am solo rek waaye boo muñul doo muñ ku muñ da nga muñ incha allah hmm. ah, façon politique bu gaan naka nga ko jàngate parce que ñu bëri ci Sénégal yi dañu koy ŋaaññu comme quoi que dafay maanaam attaqué Ousmane Sonko à tout moment naka nga jànge façon politique bi nga xamante ni moom am ñëwee na ko non façon politique amu fi politique rek politique rek a fi ne moom daal li muy def day wut kuy wut nag noo mën a amee baax na koy noo mën a amee baax na waaw gannaaw day ut day ut rek waaw politique u buggaan politi moom politique yee yem kenn ku ne ak fitam ak ñàkkam fitam rek waaye am na ñoo xam ne bu ñu amoon fitu buggaan danañ wax lépp li buggaan wax danañ ko am waaw danañ wax lépp lu buggaan wax waaye nag eh, xëy na ñoom ñoo ko dañ koo manewul wala jubluwuñ ko wala neexu leen looloo ci nekk waaye yu loolu lépp amul solo nañ wéeru ci yàlla rek waaw yàlla na ko yàlla dimbale rek waaw loolu rek am solo ku yàlla dimbale daal nga am dimbal ku yàlla dimbalewul doo am dimbal waaw yàlla dimbale da nga am dimbal ku yàlla dimbalewul doo am dimbal kon nañ dem ci ndimbalu yàlla rek moo am solo gis nga mbir yi loo wut wut wutal yàlla loo wut wut ci àdduna wutal yàlla rek dugalal yàlla seen mbir soo ci dugalee yàlla rek baax na boo ci defee yàlla boo amee sant yàlla soo amul sant yàlla waaye boo ci dugalee pexe rek boo am boo amul da day métti ci yow voilà alors yow sax naka nga gisee kaawu Moustapha te gis nañu ni moment bi ñu toll yoon tegaat na ko loxo ginnaaw bi nga xamante ni génn ci palaato yi ñu bëri jàpp ni ko dafa saaga waa Pastef wala sax kàddu yu teggi niw teg na ko ci ñoom ba yoon teg na ci moom loxo kooku du ma wax ay waxam ay waxam duma ko man daal ku wax yónin tipi li nga ko wax du ma wax say wax wax ci dara dara laa waxul ci waxam dara waxuma ko ci moom waaw. Mhm. waaw ci noonu rek ñu nuyuwaat ko bu baax di taxawaat ak moom ba tey rek ci li nga xamante ne aussi moo di politique stage euh, priorité bi nga xamante ne tey yaakaar nga ne gouvernement bi war na ko def ci askanu Sénégal sa gis-gis lan la ginnaaw jox nañ leen li nga xamante ne mooy majorité assemblée ndax wax na ko liggéey moo def. ah sama gis-gis kay lenn la rek li li ñu war a defal senegal mooy li Sénégal bëgg paj mi nañ ci taxaw njàng mi nañ ci taxaw. courant bi nañ ci taxaw ndox mi nañ ci taxaw lépp lu a itteel Sénégal nañ ci taxaw li itteel poosu nit ñi ne kenn ku ne yaay wul loo def sa poos waaye kenn du la ko wutal gouvernement buñ ko tegee pour itteel réew mi la mu dem ci na seet li nga xam ne moo arrangé Sénégal ñu def loola li arrangé wul Sénégal ñu moytu loola loolu rek mooy mooy mbir mi li arrangé Sénégal nañ ko nañ ci jublu li arrangé wul Sénégal nañ ko teg fële poos yi nit ñi kenn ku ne sa poos dangay ngay loo ci def waaye bëgg bëgg ñëpp dem ci état naan wuy nangam nangam duñ joxe duñ maye duñ nangam ku la ne loolu tax ñu teg leen fi loolu taxul ñu teg leen fi dañ leen fi teg pour réew mi lu doxal réew mi suñu ndox mi suñu courant bi suñu téléphone mi suñu faj yi suñu yoon yi suñu tali yi looloo tax ñu teg leen fi nañu sonn ci loolu. waaye bu ñu sonn ci poosu nit ñi bu buñ ko defee duñ dem waaw duñ dem poosu ku mën a doon buñ ko defee duñ dem ku bëgg dara da ngay def dara ku bëgg dara def dara am dara ku bëggul dara doo def dara doo am dara waaw kon bu buñ bëggee dara nañ def dara ku bëgg dara da ngay def dara am dara waaye jaaxaan rek di caaxaan di font di tappale loolu du mayee dara mhm. waaw loolu du mayee dara dara dara dara nit ku ne gis nga njuba di du la may dara njubadi lum la may dana la ko xañ bis waaye njub lum la may du la ko xañ njub dafa baax sel dafa baax yiw dafa baax lépp dafa baax kon nag nañ ko def noonu rek. Mhm. Mhm. bokk na ci projet boo xamante ne saa su ne dañuy dégg ci le premier ministre mu koy wax ci ndawu Sénégal ndax am nga yaakaar tey ndawu Sénégal bu ñu leen woowee ci loolu dinañ ko def. mooy lan saa su ne dañuy dañuy dégg ci ay kàddu muy wax wàllu mbay mbay mbay fi Sénégal toll ak jeunesse bi ndax dinañ am courage yu bàyyi Dakar génn dem mbay ju saa ah buñ ko amul ñoo xam. buñ ko amul ñoo xam. waaye mbay moom moo ñun mbay mooy suñu maam. Mhm. suñuy maam mbay la ñu xam. réew mi mbayee ko indi fii fenn kenn indiwu ko fii mbayee ko indi fii mhm. kon nag buñ ne leen mbay nañ leen ne jox leen ñu mooy mbay mbayukaay jox leen ñu mooy yu ñuy mbayee su ngeen ñu joxee moyen mbay ñu mbay bu ngeen joxul mooy mbay nag du ñu mën a mbay mhm. ah bay moom moo indi senegal fii suñu maam yi mbay rek la ñu xamoon léegi leen nit ñi xam ndakaaru bi ñu xamee Dakar la àdduna tukki waaw ndax réew mi fii fii kenn dëkku fi de ndakaar gi kenn dëkku fi waaw kenn dëkku fi dañoo dox ba daje fi rek di wuus si di wuus si daje fi rek bala nga koo xam tabaski jot bu tabaski jotee ñéppay dem bàyyi fi kër kër yi daal la fi dëkk kër yi ñoom fi lañ dëkk waaye nit ñi dëkkuñu fi <laughs> kër yi ñoom fii la ñu dëkk waaye nit ñi ñoom dëkkuñu fi waaw Oustaz ma relancé waat la tuuti parce que dañuy seetlu à chaque fois Sénégal dafay mel ni dafay am benn war warma wala benn taxawaay boo xamante ne dafay des ci diine bu ñu gisee nit génn mën a taxaw sëriñ wala nit génn mën a taxaw li nga xamante ne moo di yonent bi kenn ko arrêté kenn du dara pour taxawee saaga parti wala mu taxaw saaga benn nit ñu yoon def liggéeyam te diine Sénégal naka lañ ko war a mën a taxawee. déedéet déedéet déedéet diine dafa am ñu ko nekkalul. Mm-hmm. waaye ñi nekkal diine ñu ngi waxal diine. c'est-à-dire dañoo amul doole. waaw ñi nekkal diine ñu ngi waxal diine dañoo amul doole. waaw ku ko amul doole nag amoo doole. soo muñee dana baax parce que yàlla waxtu wu ko neexee mu faj yàlla waxtu wu ko neexee mu faj lu mu bëgg a faj dara ko dara nga ci manul waaye bu ko neexul nag du faj waaw kon nag diini ji moom buñ ne dara buñ saagaa yonent bi wala ñu saaga yonent yi wala ñu saaga benn nitu yàlla ñépp ne pat waaye bu ñu laalee état kenn ku ne jóg waaw état moo am ñu ko nekkal état moo am ñu ko nekkal ñooñu nag dañuy wisilan ba nga xam ne ku leen laal ñu dal sa kaw parce que mënoo fal dara ba pare dal ci kaw loolu mënul nekk mhm. kon nag képp kuy laal yonent bi man seex waxuma ko waaw mhm. yaay yonent bi bàyyi yonent bi ku leen di laal baxuma say wax say wax dara laa ci waxul yaay yonent bi bàyyi yonent bi dara waxuma ko say wax parce que ñu ñu woy tàgg leen fu ne yow nga xëy ne gënul sama ndey gënul sama baay man sax waxuma ko man bu ma kenn waxoo yooyu. Mm-hmm. waaw euh, ku mel noonu bu dem yoon texee ba teg ko loxo lan nga jàppaleel mooy war a nekk taxawaayam. du ma ci wax de du ma ci wax de du ma wax loolu moom duma ci wax mukk wax naa la ko waaw. Mm-hmm. Mm. doo ci wax. Mm-hmm. Euh, kon état ban doole la war a mën a yokk diine ba nit ku nar a waxati lenn lu bon ci diine wala lu ñaaw nga xam ni ngay taxawee. état lu muy yokk diine amul diine kenn mënu ko yokk. ak diinu lii wax dii yàlla nee na diine maa ko moom kenn moomu ko kon yàlla kenn mënu ko yokkal dara kenn mënu ko wàññil dara ndax ak diinu lii wax dii maliki yow mi diini jàng nga ko kooku moom lu waay gàtt-gàtt aliwo da nga ci yegg maliki yow mi diini iyaaka naabudu faatee la kenn ku ne xam na loolu gannaaw yàlla moo moom diine ki moom diine kenn mënu ko yokkal kenn mënu ko wàññil nañ ko bàyyi diineem rek waaw nañ ko bàyyi ak diineem ko am chance daal boole na la ci diine ji ku amul chance boolewul la ci diine ji yaa xam. Mm-hmm. saa dañoo gis ne que ci wàllu diine boobu noonu suñu suñu loi réew fàggu na benn benn article boo xamante ne si da leen défendre mais application bi loo xamante ne si lu tardé la pour yow loolu. maanaam tey jii nii am na yoo xamante ni soo ko tegee ci diine ji wala kilifa diine loi bi ci jëm moom dafa teg xamante ni dalay teg ay daan mais application moo nekk li nga xamante ne moom moom la ñu deful maanaam mettre ko en vigueur daal pour yow lan moo waral gàllankoor. gàllankoor bi ci ñoom la gannaaw ñoo ko def ñoo def application bi ñoo ko war a indi ba nga xam ne ku ko def itam ñu dal sa kaw def nañ ko daluñu seen kaw kon ci ñoom la ñoom ñi ko sos ñoo ko def parce que boo sosee dara danga koy commencer ci ñi nga xam ne ñoo def lu ñu warul def ko dal ci diine nga dal ci kawam ko dal ci nitu diine nga dal ci kawam waaye gis nga loolu lépp amul solo nitu diine yi ñi nga xam ne ñoom diine leen ñor li nga diine ba mu sosoo ba léegi nit di ko nekkal ba léegi dañ koy xeex kenn mënuñ ci dara waaw Serigne Touba ak Alaaji Maalik ak ñëpp dañ leen di xeex yonent bi ak yi leen jiitu ñëpp dañ leen di xeex xoolal yonent bi ba mu commencé waaw la xoolal xoolal fa mu commencé niñ ko xeexee ak niñ ko def ak damm niñ bañam lu ne def nañ ko yonent bi loolu moom fi lañ ko fekk ñu baax ak ñu bon ñu baax ñi ñu ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul ñu baax ñaa ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul ñu baax ñaa ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul noonu la yàlla bindee àdduna waaw waaye lépp du baax ñi dañuy baax ñii bon ñi bëgg lu baax ñii bëgg lu bon bëgg lu baax nag niñ góorgóorlu isa kunta fii amrin fakun fii imaamu ali nee na loo nekkati nekk ci rek waaw boo nekkee ci la sëgg rek bul faale kenn bul faale dara mooy tax nga yegg fa nga jëm waaye kuy bëgg a tontu nit ñi bëgg a wax ni doo dem da ngay fexee rek nekk ci li nga nekkal yow rek bul fayu bul tontu bul def de boo demee ba yegg nag jeex na boo yeggee fa nga yëm kay jeex na li nga bëgg am nga ko sawa waaw kay waa ci leneen loo xamante ne rek dañ ci génn ginnaaw parenthèse boobu noonu nga xamante ne def nañ ci yaatal bu am solo lépp rek ci Sénégal usal naka ngay jàngatee Sénégal ba léegi da ngay gis tey nit am problème ci boppam wala problème famille wala problème sax ak ay waajuram léegi ci internet la ñuy indi problème yi pour mën ko fa régler euh, jàngat boobu lan la ci Sénégal. ci euh, ci internet la ñuy indi problème yi pour mën ko fa régler ak ci tribunal yi. dañ ciy booli tribunal yi. parce que sëy boo gis. Mhm. ñu ngi ko fa ci jàkk yëpp. waaye buy tas nga jëm tribunal. dëgg ah? mhm. suuf soo gis bañ koy jaayante ke ko waaye ba ba ba coow lay am mu nga dem tribunal sëy ak suuf moo fi am problème. Mhm. tribunal léegi internet yi mooy ñu amul kilifa rek parce sëy. amul amul internet amul dara luy internet yow siiwal sa bopp la mm-hmm. da bëgg a siiwal sa bopp dafa am loo xam ne jarul yóbbu ci yoon sa famille nga yóbbu ko ci internet mm-hmm. sa mbokk yóbbu ci internet sa dëkkandoo nga yóbbu ci internet nga mbaam mu ŋaax sax nga yóbbu ŋaaxeen ba internet loolu mooy lan loolu du dara nañu fexe ba nekk nit ñu yiw nit ñu jàmbure nit ki day dugg ci lu yoonam nekk waaye lu yoon am nekk war cee dugg fi mu ne nit ñaa seen lu seen yoon nekkul ku ci nekk nag yaa ngi mbir moo xam ne bëggoo mu siiw te bu siiwee àdduna tukki te yaa ngi rey sa bopp ci mbir nit ñi yaa ngi rey sa bopp ci mbir nit ñi wëy diw nangam diw nangam diw nangam te yow yaa ngi mbir moo xam ne bu siiwee àdduna tukki waaw kooku du noonu da ngay fexe ba nga jàmbur yi ci nit ñi fexe ba nekk wax lu sa yoon nekk def lu sa yoon nekk yóbbu sa yoon si dara waaye yow defoo dara lu sa yoon nekk loolu doxul. Mhm. waaw nañu def lu yu suñu yoon nekk rek moo dox. Mhm. loolu mooy mbir mi. oustaz ndax war naa defal waajuram ba bàkk. ah bu ko bu bàkkoo daa dof. Hmm. bu bàkkoo daa dof di parce que wuy juram war a bàkku moom mi ko jur. mi bàyyi mi ko jur ak ndey mi ko jur ñoo war a bàkku ne cëy sama doom ji. maa ko defal lii maa ko defal lii maa ko defal lii yàlla itam bàkku ne ko maa la defal lii mu jeex waaw. ku bàkku rek am ko bàkku doom bu bàkkoo mm. jaaxaan bàyyam bàkku ndeyam bàkku ne ko buñ la jur doon doo def li yàlla itam bàkku ne ko bu ma leen jur bindu leen du ngeen def li kenn ku ne amoo looy bàkku ci sam kanam morom yàlla rek a war a bàkku doom dafa war bu amee dara na sant yàlla mi ko ko may ba mu mën a teral ñaari wuy juróom ba mu mën leen a defal lu baax na ca sante yàlla loolu waaye bu mu fa ne di tiitaroog man nangam mag di damm mbagg ak di def nii di biij biij ak bajax bajax ak ñamax ñamax yooyu hmm. yëfu ñàkk fayda yooyu ah hmm. yooyu yóbbu naa sama yaay màkk yóbbu naa sama di kat xale yi mbir yi yëpp yaay la mbir yi yëpp yaay la bàyyi bokkul bàyyi bokkul bàyyi moom bàyyi fële lañ ko bàyyi waaw ah, bàyyi waaye moo taxit yàlla deful defal li gën hmm. parce que boo fekkee bëgg ngaa bëgg nga sa ñaari waajur yi da ngay wax ne man de sama ñaari jur su ma amee dana danaa leen dimbali su ma amee dara dinaa dimbali sama papa naa dimbali sama est-ce que xam koy principal principalu kër hmm. mooy baay baay mooy principalu kër waaw yaay doom ci bàyyi la ñu topp bàyyi jiitu yaay topp ci doom topp ci waaye maire yi leen ci dimbali waaw su man kay waaw waaw seen kër baay li ma ci daj na bu amee yàlla bu mu am wujji nag soo amee wujj nag la wax ji ñaaw waaw seen kër bàyyi gi li ma ci daj dajoo ci dara dara nga ci dajul dara nga ci dajul da ngay wax rek di sànni waaw waaw da ngay wax rek di sànni loolu du waxu dara nañ neen ñu bàyyi loolu bàyyi xale yi ñuy influencer seen kaw wuy juri loolu doxul boo influence sa doom ba mu dal ci kaw sa kaw kaw baayam yàqule na yàqule na dootul am dara dara doom kenn du ko influence ci kaw wuy juram mhm. waaw dara da koy dimbali ne ko fonkal sa baay dimbalee sa baay ndax jox nga sa baay ndax ma dimbali nga sa baay loolu la yaay daan wax bu njëkk suñu yaay yi mu musuñoo nangoo am dara dara boo leen jox ñu demal jox sa baay suñu yaay noonu lañ daan def man fekkee naa ci lu bëri sa yaay loo ko jox mu ne joxal sa baay ak ci demal yóbbul sa baay sa baay baay moo daan nekk buuru kër gi waaw buuru kër gi la daan doon léegi nag baadoo la kër gi la waaw baadoo la kër kenn faaleetu ko moo taxit daara doxul mu ngeen bëggee mu dox bàyyi leen xel bàyyi bàyyi leen xel bàyyi bàyyi leen xel bàyyi ndax mbir yi dox su ngeen ko jëmee ci ndey du dox parce que ndey bàyyi ko fi indi te yàlla du du juum ndey bàyyi ko fi indi nu mën a mel bàyyi ko fi indi doom nu mën a mel bàyyi ko jur kon nañ leen bàyyi xel bu bàyyi moo gën waaw kay mm-hmm. Mm-hmm. mais loolu oustaz euh, dafa nekk loo xamante ne léegi wax nga ko dafa dem booy su nopp nit c'est nit wax tudd baay yaay rek yaay rek ah, waaw mooy li ma la wax rek boo tuddee sa yaay yàlla bàyyi la ak moom sa yaay rek <laughs> yàlla bàyyi la ak moom wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaana yàlla nee bu ngeen paree sama tool dem leen seen toolu wuy jur yi wa bil waalidayni la wax waaw seen ñaari wuy jur sa papa ak si de koo góorale waaye bu fekkoon daa jigéenal waalidayni ñu xam ne ndey ngay jiital waaye daf koo góoral wa bil waalidayni ihsaanam waa ah, nga nga nga bàyyi xel sa ñaari jur moo gën waaye des desal ginnaaw sa papa baaxul soo ko desalee gannaaw boo ko seetee yàgg sa yaay da ngeen wéet torop da ngeen wéet torop torop torop torop torop da ngeen bëgg lu leen jafe da ngeen bëgg lu leen lu leen yombul loolu wéetal sa waajur a koy def kon nag nañ leen jàpp jàppale waajur yi loo wax nga ne damay gis sama papa loo wax nga ne ma dem sama papa booy génn tàggul sa papa sooy def dara tàggul sa papa bu la bàyyi nga dem bu la bàyyiwul nga toog waaw waaye yaay maa ngi dem fii ti ñëw te rek loolu bàyyi nga ne tookat yor kurusam sa ndey sa bàyyi dama ne bàyyi baadu la rek baadu la bu ñu ci kër la rek tum ak aji tumuranke la rek bo boolewuñ ko ci dara ngay dem romb sa bàyyi dem tàggu sa ndey hmm. dem ñëw ne ko yaay ñëw naa ah waaw baa sa yoon wi neex da nga ah, kay yaay neexul lu muy neexee du neex parce que ko war a neexal danga koo bàyyi gannaaw waaw ka nga war a neexal moom nga war a bàyyi gannaaw ndax barke bàyyi yomb ndey waaw soo bëggee loo am mu am barke di fonkal sa baay loo bëgg boo bëggee mu ah, loo am mu am mu yomb la fonkal sa ndey kon fonk leen ndey yeeg fonk leen ndey yeeg fonk leen ndey bàyyi ndax lu ngeen bëgg mu yomb leen bu leen topp seen bakken bu leen topp seen adduna bu leen topp coow li nit ñi coow topp leen lii yoon ndax ngeen am li ngeen bëgg. Hmm. waaw kon euh, barke boobu ci bàyyi la nekk lu am solo la oustaz ndax euh, yaakaar naa ne Sénégal dem nañ ba lépp rek dañ naan bu la sa yaay ñaanalee rek soo génnee da ngay am di nga bëgg da ngay ne ci kër sa bàyyi di fay sa jàng nga dem ba mën dépense bi si loxo yaay bi nga koy jaarale bàyyi bokkutu. waaw ba tey yaa xam yaa nga xam nga bàyyi bokkatul. Mm. bàyyi bokkoon na. ba mu méttee ba mm-hmm. mu bokk na waaye bi mu neexee mm-hmm. génne nga ko waaye dana naqariwaat nag mm-hmm. neex gi dana naqadiwaat ndax li ngay feyeku da nga dem a dem ba am problème yoo xam ne yaa sa ndey rekk koy xam ndax li ngay feyeku du ko fay problème yi du ko faj nañ leen ñu bàyyi xel wuy jur yu góor yi nañ leen ñu bàyyi xel wuy jur yu góor yi xa benn góor de nee na ma doom su ma xamoon ne man samay doom nii la ñuy mel du ma wut jabar ah <laughs> wallaahi nee na ma su xamoon ne su may doom nii la ñuy mel du ma wut jabar mukk mukk mukk mukk ndax ma ne ko ah, eh, yaa xam ndax itam eh, ku sa doom eh, wan ginnaaw nga toog di ko seetaan rek bu yàggee dana wëlbatiku baa bu amee chance su amee chance dana wëlbatiku bu amul chance nag dana continuer mhm. bu continuer nag dana gaañu waaw kenn ku ne daa téye sa way jur su ma amee dimbali sama ñaari wuy jur waaye da ngay dégg ku naan man sama njàng mi dama bëgg mu baax ba ma dimbali sama yaay dama bëgg a dem nga jàppale ba ma dem bitim réew dimbali sama yaay mais ni ko amul baay kenn rekk amul bàyyi kenn rek amul baay mooy yonent Yàlla Isa moo tax ba muy wax mu ne wa barran bi waalidati waaw wa barran bi waalidati ndax ndey rek laa mu ni yàlla daf ma sant ma fonk sama yaay dimbali sama yaay ndax aw ma baay waaye boo amoon baay ñi mu la wax loolu waaye amul baay waaw kéemaan la juddoo moom yonti yàlla Isa kéemaan googu mu juddoo nag moo tax suñu borom ne ko waxal ne wa barran bi waalidati waaw kay koo ko sañ na koo wax waaye yow nga am baay am ndey bàyyi sa bàyyi fële naan sama yaay laa bëgg a jàppale sama yaay laa bëgg a defal lii mm. sama yaay laa bëgg a defal laa moo tax lii ak laa dana fi yàgg doo ko def dana fi yàggati doo ko def lii dana fi bokk bo boo wax lii ak laa dana fi yàgg yàggati doo du sotti nit ku nekk dafa war a bàyyi xel la muy def waaw gis nga boo ne sama yaay ñu yërëm la baax na defal waaye buñ la yërëmee loo am dara doo ko am daara ñi la yërëm duñ la defal daara daara dañ la dul defal ah waaye yow de ndeysaan man de billaay su ma amoon naa la dimbali ndax ni nga mes sa yaay xanaa nga am junni bi junni lu muy faj. junni lu muy faj. la lan lay faj. ci ko bëgg a defal yaayam. loolu du waxu dara dañoo fàtte wuy juri ci ko fàtte sa baay doo dem waaw man sama papa dund na ba dem sama yaay mus yi nga bi sama papa gaañoon Euh, bi ñu seeti alalam day ne ah moom de eh, yore na jaara nangam ci alal sama yaay ne laa ilaa xalaatuma koo jël xalaatuma koo jël Ablaay lu ma ko jox moo ko moom waaw loolu la lu ma ko jox moo ko moom bu ma ko kenn waxati waaw mais ak leneen loo xam ne duma ko nettali loolu noonu la nit di mel ak noonu la doom eh, jabar di mel parce que noo mel rek noonu la say doom mel doom jàngaaniwul kat ndeye may sëriñam doom joo gis jàngaaniwul ndeye may sëriñam lu sa ndey mel rek ngay mel waaw buñ ne doom ja ndey ja sa doom sa ndeye bon gis muy fuñ fuñi rek ndeyam a bu ndeyam nekkoon ku baax doo du du fuñ fuñi waaye doom jàngaaniwul ndeye may sëriñam ku yee bu xam loolu waaw bu doom jàngaani woon ah, kay waaye ndeye may sëriñam ndee la ëmb moo la imbi moo la nàmpal moo la boot moo la def lépp moo la ko defal moo tax muy si sëyin waaw mhm. li nga mel ci sa ndey rek nga ko mën a mel waaw mhm. boo ko defee ñu xam loolu euh, ni loolu daal mooy li nekk ndax bàyyi mën naa bañ a d'accord ci sëy ndey bëgg sëy ah, bu ko defee moo xam waaye mujj ga du baax islam nangu na ko wala waaye nangu ko nga naan ndey mu islam nangu na ko ban nangu nit ñi gisoo benn waaye nee ma waaw dégg gis nga xam nga jigéen moom bu laa dee bu amul jëkkër balaa dee ñu may ko jëkkër ba pare. Mm. doo ko doo ko suul dégg seetal waxi dof yooyu. Ah, yow bu ma fooy waaye itam ah ban existé ah, loolu fu muy fu muy fu muy amee yow kuy dund amul jëkkër bu dee nu muy amee jëkkër. waaw bantu ah. lan bant ba xanaa bant ba bëggul dara sax. loolu ay caaxaan la. loolu lépp nga di ko dégg ci réew mi nga gis koo xam ne day dee jigéen de. wallaahi ñu may ko jëkk a doo ko may ko jëkk a doo ko waaye léegi nag jëkkër jëne dem ci bàmmeel ba fanaan fa. jëkkër jëne am fu la nag dem ca bàmmeel ba di fa fanaan ak ndaw si ba xam dama fa dama fa lu mu fay fekk. waaw lépp ay waxi caaxaan la ak ñàkk jàng boo jàngul lu ne ngay dugg aada junne dina dugg loolu du wax du waxi dara nañ leen fonk wuy jur yi nañ leen fonk wuy jur yi. nañ leen fonk wuy jur yi bàyyi ndey nañ leen leen fonk lu ñu bëgg ñu bëgg leen ko lu ñu bañ ñu bañ ne leen ko nekk seen militaire di leen maajal di leen dawal bu ñu dee lépp yombuñu waaw lépp yombuñu waaw. mais oustaz euh, diine wala jàngale ci yonent bi fi muy doxee boo amee benn joxal sa yaay benn jox sa yaay amaat benn jox sa yaay loolu dafa mel ni sénégalais dañ ko desee comprendre soo cee teg bàyyi parce que dañoo favoriser ci favoriser yaay sax moo war. mais ni ñuy doxee diggante ak Baye Dieng dafa am ci diggante bi misaal. boo déggee boo amee juróom joxal sa ndey sax ndey loo ko jox bàyyee ko moom loo jox ndey mu jox ko bàyyi waaye ndey joo xam ne loo ko jox mu banque doo ko jox daara daara doo ko jox waaw waaw loo ko jox daal moom mu banque ci nangam nangam dool du dara hmm. waaw bu nga déggee ni soo amee ñett joxal sa ndey jëlal benn jox sa baay ndax sa baay eh, sa yaay da ko jox ñett mu boole benn mu ñeent waaw muy ñeent ndax moo yore kër gi waaw moo yore waaye yaay yorul kër yaay yorul dara jigéen ñi léegi di yoruñu dara waaye jigéen njëkk ña woo ñoo yoru kër yi jigéen njëkk ña xam nga loo daan joxe dépense xorom xorom xorom xorom xorom xorom men sa xorom noonu la mu waay dama lay wan ni lépp a ngi ci kër gi ah, lépp a ngi ci kër gi xorom rek a manqué boobu jigéen ëppalul boobu jigéen euh, euh, melul mel ni boobu jigéen dafa dafa dafa normal mm-hmm. waaye jigéen ñi li ñu bëgg léegi benn góor mënu ko mm-hmm. waaw moo tax sëy du taxaw waaw xam nga ne xam nga ne yow jël sa doom bu jigéen mu ne man bëggum kii laa bëgg sa yaay ànd ca sa papa ne man de du ko may mm-hmm. nga ne ko waaye yaa xam ko am néeg ndey am nga néeg bàyyi waaw waaw ku am néeg bàyyi am nga kër ndey léegi ñu jël najaay ji ñëw maye ko sëy ba dem tuuti kalaj kalaj yàqu fuñ mujj tribunal tribunal lañ buñ ca boole woon bàyyi loolu lépp du ci am waaye bàyyi dafa jàmburi bàyyi daal boo juree ni nga war a juree def li nga war a def doom màgg bëgg a mooy mooy la bàyyi ko di ko seetaan rek dana ñëw bu ñëwul du amul chance waaw loolu lépp ah ah ci ci ci waru waru waru jur la ah waru garu wuy jul la dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. am na solo fa acca boo amee leneen loo ci dolli rek nga duggaat ci euh, ci li may ci dolliwaat rek oustaz dafa bokk tamit ci actualité ndax yaakaar naa ne am na ñu si weesu woon am polémique bu amoon ci wàllu mystique ak ñi nga xamante ne mooy diine ñu demlaat nag ci combat Modou Lo ak euh, Siteu ñu bëri nag di wax ci wàllum euh, mystique mbër mi dafa diine we mbër mi alxuraan gi la topp est-ce que duñ ko jàpp ci wàllum gàllaaj rey kook yooyu lan ngay wax sénégalais ci loolu oustaz ma ne kenn du ko rey na jàpp ci li mu jàpp yàlla kenn du jàpp ci moom kenn di la mënal dara loolu caaxaan la ku jàppul ci yàlla kay lañuy ñuy dara waaye ki jàpp ci yàlla ti muy dëgg kenn du la mënal dara coow li day bëri rek muy yonent yàlla Muhammad doy na misaal yonent bi muy génn ñaata li li li wéet yàlla kenn xamul nu mu toll moom rekk gëm yàlla moom rekk gëmoon yàlla di sonn di sonn di sonn ba am ñaar muy jabaram xadijatu ñëw nekk ci wetam di sonn ak moom ba àlin ñëw ñu ñett ñuy sonn ba Ababacar ñëw ñuy sonn ba am 40 muy Omar Omar daal di dugg si ñu commencé yaatal diini te adduna bi yëpp boo ne Muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam boo ne Ababacar ñu ne radiyallahu anhu soxna Omar ñooy radiyallahu anhu soxna Ousmane ñooy radiyallahu anhu soxna Ali ñooy mooy faratam waaw loo nekk ti muy yàlla lu coow la bëri bëri doo daanu doo laa su waaw lu coow la bari bari kenn mënu laa daaneel ku ànd yàlla lu coow la bëri kenn mënu laa daaneel waaw mm-hmm. coow la lu mu bari bari kenn mënu laa daaneel ndax yaa yàlla ànd waaye ku ànd ak yàlla nag lu yëngu nga daanu waaw mbott sax mën na laa daaneel sa ndax mën na laa daaneel lu ne mën na laa daaneel waaye nag boo boo boo ànd yàlla dara du la daaneel kon ñu bàyyi xel loolu mm-hmm. ku ànd ak yàlla dara mënu laa daaneel nañu bàyyi xel yàlla mm-hmm. nañu bàyyi xel loolu mm-hmm. yàlla ay ay boo demee nii non non yàlla yàlla àndal ak moom rek gis nga lu métti métti sa njëlbeen àndal ak yàlla rek àndal yàlla rek coow lu mu bari bëri àndal yàlla rek lu pexe yi bari bari ànd ak yàlla rek buy boo àndeek yàlla doo daanu mukk mukk mukk mukk mukk mukk doo laa su mukk xàcc mi nag mën na laa jege mais du la dal dama sëñ moom soo waxoon ne ma doom nag xàcc mi na la jege waaye du la dal de loolu la ma waxoon ne ma da nga doo laa suuf waaw sëñ Mansour ma waxoon loolu ñaari wax yi moom moo ne ma doom da nga jàng waaye doo laa su mukk xàcc mi dana la jege waaye du la dal waaye loolu mooy dëgg boo nekkee yàlla dara du la dal boo nekkee yàlla waaye boo ànd ak yàlla nag doo dem mhm. fenn doo fa dem mhm. fenn nga dul dem sa ndombo yeeg mhm. sa ndigg léeg sa përëg yéeg lépp nga takk ko dara doo dem fenn yàlla moom moom lépp lépp la naan e dëju leen fële gàllaaji dëju fa waaw mais nañ ba tey amee soxla nga ko jàppul ba seetlu julli ñaari yàlla ak nga jox ko butéel bi bi lay gën ko li nga ko wax. waaw parce que butéel be moo mooy cosaan. mooy seen cosaan bi parce que mooy seen aada. gannaaw aada nag lañu gëm xanaa xamoo ne boo sa doom sax bu feebaree nga def nangam nangam jàng faati fa naan yow fajil xale bii fajil xale bii ngay jàng sa yii di ko tufli demal faji ko. waaw lii taxawul. mais loolu bu taxawul bu faatee taxawul saatu faatee taxawul. fàllaxi taxawul naas taxaw luy taxaw lan mooy taxaw waaw donc loolu moom mooy nekk seen aada bu bu indil biteel ma jox ko te nag gis nga li gën a gaaw ci àdduna bu la nit tooñee boo amee soxlaak lépp lu mën a doon jullit ñaari rakkaa rek wax ko yàlla jog dem sewoon wax ko sunu borom rek jog dem sewoon mu faju day faju ci tàng-tàng bi parce que kuñ tooñ moom ah, kuñ tooñ kay daa yàkkamte rek waaye yàlla na ko faj dafay yàkkamti rek waaye dina ko faj waaw waaye nag boo yàkkamtiwul lépp a faju léppay baax léppay baax léppay baax mm-hmm. ku féeteeg yàlla sa lépp dana baax ku féetewul ak yàlla sa dara du baax na mm-hmm. waaw euh, man nag mm-hmm. waxuma ci affaire mbari de waxuma ci mbari de dama ne daanu daanu doo daanu laa wax waxuma la ku ànd ak moom doo daanu ci mbëri waxuma loolu doo daanu yàlla ku ànd ak moom doo laal suuf laa wax waaw doo laal suuf kenn du la mën a dara loolu laa waxuma ci man si te waxuma ci ay Modou Lo waaw waaw boo nañ na jaali si man ki ko sama yoon nekku ci waaye duma ci wax du ma wax ci day buy ñëw Tiwaawan nag bu dul ñëw Tiwaawan ah, am na ñu ñëw Tiwaawan di daanu di am ñu fay ñëw daanu ah, ah loolu kay du wax waaye dama laa wax lu leer dama laa wax ne la waxuma Modou Lo waxuma Siteu ku ci ànd ak yàlla déedéet dama ne ku ànd ak yàlla doo laal suuf waaw yàlla laa wax ku ànd ak moom doo laasu da nga jàng nag waaye doo daanu mhm. xàcc mi dana dal waaye du laa du la laal mhm. loolu laa wax nag loolu nga wax mhm. euh, jàngat bi nga ciy am ak gis-gis bi ndax gis nañ ca ba muy doon na mu daan takkee gëmoon musique gëmoon gàllaaj jamono dox mu jël lépp teg ko fële dem si ñaari combat ci li mu gëm yàlla suturaal ko ci may ko si ndam te ba mu ci dem ñu bëri dañ ne bu demee day ñaax waaye moom ànd naak gëm-gëmam ne lee baaxatul jël na ko teg fee li baax lay dem boo commencé ci lu bon li demul nga dem ci lu baax li muy dem kay nooy def ah, nees nekkal ci lu baax li rek ah, saxal ci li baax rek waaw continuer ci li baax gannaaw nekk nga ci lu bon li demul nga nekk ci lu bon li dem takk sa ndigg takk sa baat takk sa lépp saafara yi ñu di la nax di fen rek fen rek lañu fi nekk di fen rek naan la boo defii li da nga am li fen rek ah, waaw boo defii li da nga am li boo defii li da am li ngay nga nga gëm loolu ah waa afin doo dem fenn boo demee nag ci yàlla mi sell mi nga xam ne amul ndombo amul dara amul yàlla moom kenn la rek kenn la rek benn buur la rek moo àttan lépp moo moom ñëpp waaw ñëpp moo leen moom te bi mu leen bind jaamu ko rek a tax mu bind leen wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imuuni yàlla nee na maa bind nit a jinne li ma leen bindee ngeen jaamu ma jaamu leen ma bëgguma ngeen may ma xaalis bëgguma ngeen may ma ñam bëgguma ci yéen dara jaamu ma rek laa bëgg koo ko jaamu danga am li nga bëgg ko jaamul nag sa affaire la mm-hmm. waaw mm-hmm. Eh, ci tàggatoo oustaz yaakaar naa ne kàddu am na loo xamante ne yaakaar wala ñu ci ay mbir yoo xamante am jëkkër ba pare bàyyi sa jëkkër dem di séq ak beneen jëkkër di njaalu loolu lan lañ ko mën amewul suñu réew ah waaye yow yaa yàlla yow ci lu gis parce que vidéo. maanaam bu parce que vidéo yooyu gisee ñu ko Sénégal ci beneen réew lañ ko gisee. fii ci loolu loolu jeex. Eh. loolu Sénégal gi moo fi ëpp. am jëkkër am far. jëkkër am gis nga gis nga mbir wax duñ ko yërëm. dafa am jëkkër am far. jigéen ñi am na ñoo xam ne dañoo am jëkkër am far waaye lu mën a doon du dana feeñ. dana feeñ parce que jëkk xam nga loolu mooy bokkaale loolooy bokkaale loolu mooy bokkaal laa waaw buñ ne la luy bokkaale pour nga bëgg ko fiir mu leer nga ne mooy jigéen ju am jëkkër am fa ko bu ko ko bëgg gan góor a ko bëgg xam nga kenn bëgg ko yàlla yi nee na ma itam bëgguma na ngeen wutal ma eh, keneen naa ni yàlla ki yàlla diw yàlla diw waaye nee na gis naa yàlla joo xam ne nag moom kooku moom yàlla ñu ne ko kan la mu ne afara ayta man ittaxasa illaahu hawaahu am na ñoo xam ne seen bànneexu bakkan seen yàlla lu seen bànneexu bakkan bëgg rek loolu la ñu bëgg ñoom seen yoon nekku ji ay addunaag ay coog nangam nangam kii eh, eh, eh, usaat bi seer laag kii kaw kaw laag kii xamul dara nangam nangam topp seen bakken rek ale waaye boo toppee sa bakkan ba ci mujj da xam dara parce que ku topp sa bakkan am na lu yoot li lay yootan sa kanam bis boo ni rëll ci kawam rek da nga doyal topp boo toppee sa bakkan am na lu lay yoot ti li lay yootan sa kanam te boo la réerle rek nga doyal. Mm-hmm. waaw waaw moom kay amul werante. lan moo mën a dugal loolu ci jigéen am jëkkër am far sa jëkkër beneen góor di li la ci dugal sa taar la ci dugal sa taar man nii laa mel góor ñi góor gi itam jay la rek gannaaw moom ko ko ko la jay nga jayaxu mu jay la rek ba nga jayaxu rek daal di nangam nangam ah, rek acca waaye daal am jëkkër am far yàlla ñu ci yàlla musal. am jabar am am am am am ndaw am ndaw yàlla na si yàlla musal yaa waaw moom moom laa wax moom daal loolu lu mu mën a doon yàlla nañ ci yàlla musal nit ki dafa war a moytu am nga jabar yamal sa jabar su la doyul nga gis beneen jigéen nga takk ko moo gën ngay caaxaan ak moom am jabar dem ci jabaru jàmbur loolu itam musiba la waaye yow sa jabar xar kaay ma wax la nag mm. waxtu woo fooyee nit waxtu woo demee ci loo xam ne du yàlla sunu borom dana la nattu ñu def ko sa njaboot ku ko def jabaru jàmbur na la wóor ne sa jabar nañ ko def ko def doomu jàmbur danañ ko def sa doom moom benn sikk nekku yi ku yebu rek moytu moytu leen moo gën waaye ku moytul yaa xam waaye ko def jabaru jàmbur danañ ko def sa jabar koo def doomu jàmbur dañ ko def sa doom moom ala kulli xaalin noonu la yàlla lay fayee kamaa tëddiinu tuddaanu kamaa tëddiinu tuddaanu kenn ku ne la nga leble loolu lañ lay fay loolu nga leble loolu lañ la fay voilà. léeg jàpp ne njàmbaaram la góoram la waaw léegi wax na dëgg di mhm. léegi nga jàpp ni loolu sa jantal la mhm. moo tax góor ndaw si topp la mhm. nangam nanga fekk du loolu fekk sa repp la sa repp nag bu la toppee yaa xam mm. waaw fekk sa repp la topp ku reppam topp nag moo xam waaw waaw bu la sa repp toppee moo xam mm. waaye nag bu fekkente ne li la topp waaye diw dafa jantal diw dafa nangam diw dafa nangam mm. te loolu nekkul ci yow loolu musiba la bu nekkee ci yow sax amul am am jarul wax mooy lal mooy lal diw jantal maraala ak jantal nang usaala ak jantal nang ngay tiitar rek di xuguli ko ajoo ko def nii loolu ban ban njëriñ la am ah, ah, loolu amul njëriñ ak usaasu jamono yooyu yëpp ñu la koy wax yooyu yëpp bëgg laa dugal rek bu lànkal lànkal nekkal usaasu yàlla nekkal usaasu yàlla yow mi doon usaas waaye bul nangoo nekk usaasu jigéen ñi bul nekk usaasu góor ñi bul nekk usaasu Jean bul nekk usaasu Paul nekkal ustaasu yàlla jàll jalaaluhu mm, jeex ci mm. loolu ustaas bëgg naa nga leeral tuuti mbokk internet yi parce que damay gis sax ci commentaire yi ginnaaw bi nga xamante ni ñëw nañ fi nga ne bu la kenn waxate ustaas ñuy laaj lan moo ko waral lan moo tax bëggatu ko la wax ustaas non ko bëggoon xam nga ustaas moom dafa am na niveau la niveau la boo xam ne ku cay yeggul waroo ko nangu nee naa la alaaji maalik ustaas la ustaas jéen ustaas la ñooñu doon nañu ak ñeneen ñi nga dégg ay sëñ Tuubaa ak ñooñu mën nañoo doon oustaz ndax ñoo mooy firi wéeruwaay wéeruwaay ci lépp nag lay doon ci jikkook ci xam-xam ci maandoog ci sell ak ci yiw lépp loolu lay doon moo tax ñoom ñooy oustaz yi moo tax yaa oustaz sindiidu waaw oustaz boobu loolu la waaye nag Iran mii nga xam ne jubul sellul baaxul melul nenn nga naan ko oustaz yow yow yàlla yow ce que balaa ko yàlla duma sax du la duma yow ah yow yàlla yow lay njëkka a duma moo tax mu bëgg yàlla musal la mu yàlla musal la mu lay mu lay mu lay wax ne la noppil bu ma waxati ustaas waaw moo tax yàlla di la wax loolu ustaas bi la bi la bëgg a musal moo tax mu ne la noppil bu ma waxati ustaas ku ma ko wax na yaa xam waaye man daal neexuma man daal man su ma ca yeggee nag alhamdulilahi rabbil alamin ku mu ko xoola oustaz téere téere euh, euh, arab yi bind ñu da ngay gis ne oustaz docteur oustaz docteur oustaz docteur rek waaw ñooñu ay ngand lañu waaye koo xam ne fero i ji xamoo dara ñu naa la oustaz waaw mais loolu ku ma ko man dang maa tooñ dama ko danga maa tooñ moo tax commentaire yi lépp daal na ngeen dellu ci ni Iran daal moom bëggul usas ndax yeggagul ca dara jaja bu ca yeggee nag mën nañ ko ko wax waaye yeggagu ca te gëm na ba muy dee du ca yegg kon nag am bëgg ko bëgg ko waaw ah ba ba tey daal du ma oustaz. def da koy bañ. <laughs> allah yaakaar yaakaar uh-huh, naa ne. baax na am na solo ci waxtaan bu yaatu rek ñu seqoon ak ñu bàyyi la rek nga joxe dernier kàddu oustaz bi ah, mooy ne ñoom jomaay góorgóorlu rek. Mm-hmm. te yéen itam ngeen bàyyi leen ñu liggéey nag. Ah, waay waaye bàyyi leen leen ñu liggéey nag. bàyyi leen leen ñu liggéey. ñëpp nañ leen bàyyi ñu liggéey. waaw am nañ li ñu bëggoon. nañ leen bàyyi ndax am na lu ñu xalaat li ñu xalaat ñu doxal ko waaye nag jiital nit ba pare di ko fakastal doxul jiital nit di ko fakastal doxul yàlla yor lépp yi nga bala ngeen xam ne yàllaa yor lépp am na ñoo xam ne jàpp ne Ousmane Sonko am li ñe bi lañuy jàppoon ne ñooy gañe loolu am na ñoo xam ne loolu lañ jàppoon waaye xamoo ne yàlla du la jox lu matul lu mat sëkk la lay doon ndax tuutil mulka man tasha wa tansiul mulka mi man tasha mooy jox nguur ku ko neex ci nguur yàlla du ci joxe euh, lu lu lu matul lu ma sëkk la lay jox da jox président gi jox la député yi mm-hmm. mu ma sëkk nag mu bàyyi la ak sa bopp waaw itam nag boo ko delloo yàlla rek nga noppalu delloo ko yàlla yàlla jàppale la nga noppalu waaw loolu rek mooy mbir mi ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu